Ah, suñu mbokk UNAPAS yi ñoom Omar Dia ñoom Adama Mbengue ñoo woote tey bis bu am solo fii ci gox bi te mooy ñu seetal euh, tefesu euh, Soumbédioune ku ne xam na ni euh, tefesu Soumbédioune li mu taxawaay bi mu amoon dafa am solo ndax fii la ñuy jëndee jën te du waa commune bi rek ñoo fi jënd jën waa dakaar yëpp boo saagantul fii la ñuy ñëw di fi jënd jën waxuma la sax waa Dakar waaye même ñi nekk di dëkk yeneen dëkk yi dañuy ñëw fii di fi jënd jën di yóbbu seen dëkk donc bu ñu amee bis bu mel nii ñëpp ci war a jàpp ñëpp ci war taxaw tey jii am nañu mbégte lool biñ ñëwee fekk. ministre bi ñëw na fi ñu daje fekk tamit maire Gueule Tapée Fass Colobane daje fekk maire ville de Dakar di Soham Wardini loolu wane ni ñoom ñëpp am na fu ñu teg bee bi te ñun tamit duñ ci des gannaaw dinañ ci gunge waa UNAPAS taxaw ci ba nga xam ni bee bi ni mu meloon démb ak bërki démb dina dina ko mel ci buñ ci taxawee taxawaay bu am solo boobu mbalit mi fi ñëw ci canal bi lay jóge bu jógee ci kanaal bi ñu indi ko ndoxu taw bi indi ko ci géej gi waaye bu taw bi sawetee rek géej gi daf koy goqiwaat mu ñëw ci biir tefes gis ngeen ni mbalit mi toll loolu mënuñu chaque année ñu ñëw fii di def opération bu mel nii war nañu seet ba nga xam ni dinañu am ay solution yoo xam ni ëllëg ak gannaaw ëllëg kenn dootu fi ñëw di def ay set setal waaye day fekk ni boobu mbalit mi balaa yegsi am na yu koy gàttandu ba téye ko ba du mën a dem ci biir euh, ci biir ci biir place bi loolu daal lañ ñu woon dinañ ñëw waxtaan ceeg euh, askan wi euh, rawatina nag bi nga xamee ne autorité yëpp ñëw nañ fi autorité gouvernementale autorité municipale ñun les citoyens ñu ñëw tamit taxaw bëgg indi suñu ndimbal ak suñu taxaw ba lii ñu fiy xalaat mu nekk loo xam ne ëllëg dinañ ko mën a def ci nu mu gën a rafetee ci anam nu mu gën a sellee mairie bi tamit ñu ngi la waaw loolu moom euh, fësal nañ ko keroog bi nga xamee ni woo nañu askanu Gueule Tapée askanu Fass askanu Colobane fële ca Grand Théâtre ngir wane li nga xam ne moom lañ mbébét ngir suqali gox bi loolu tënk nañ ko ci ay poñ ñëpp xam nañ ko léegi nag li ci des mooy ñu fexe ba tas ko ci gox ak gox garaan yi nga xam ni ku nekk dina xam lan lañu ñu ba bu ëllëgee bu taxawee ci seen kanam ni leen dañoo bëgg a jël mairie Gueule Tapée Fass Colobane ñu xam ne ñii kat li ñuy wax am na fu ñu ko teg waaye du ay waxi neen rek nii loolu lañ ci am comme liñ ci. yéen boo leen jëlee mairie Gueule Tapée mhm. changement li fi amoon. yi wax nañ ko ci juróom-ñaari poñ lekk lay tënku bi ci njëkk mooy suñu cadre de vie maanaam lépp loo xam ni nekk na comme cadre de vie ñu fexe ba mu jëm kanam mucc ayib gis ngeen ni lii nii xam nga ni rafetul. fii dafa war a set wecc fii ak Gueule ak Colobane ak faas dafa war a set wecc suuf si fi nekk ñu dindi ko ba mu jeex tàkk canalisation bi ñu def ko ba mu mucc ayib xam nga loolu du programme bu ndaw ba pare nag ñu taxaw ci wàllu ñàng taxaw ci wàllu wér yaram taxaw ci wàllu caada mooy culture taxaw ci wàllu tàggat yaram mooy sport waaye tamit taxaw ci wàllu kaaraange mooy sécurité ak xëyu ndaw yi ak xëyu jigéen yi loolu mooy juróom poñ yi nga xam ni ci la tënk suñu doxalin ak suñu jéego yi nga xam ne moom la ñu fas yéenee dox fii ci biir commune u Gueule Tapée Fass xaalis bu bari la nag boo ko dee dégg nii dana neex ci wax waaye alal gu baree baree bare la waaye ñun dañ ni nii état bi amee PSE ñu nit dañu am suñu PSE local seet lan lan mooy mën a jëmale suñu gox kanam ñu tënk ko ci kayit ba ëllëg ku fi ñëw naan da ñuy jéem a jàppale ñu ne ko ñun kat lii la ñu bëgg kuñu ci taxaw ñu lañ bëgg kuñu ci jàppale loolu nag donte le am ay milliards yu bari la yaakaar nañ ne bu ci ñëpp taxawee état bi taxaw ci ñiy dimbali démb ak bërki démb Sénégal muy les bailleurs de fonds taxaw ci les partenaires au développement le secteur privé am ci wàllu moom it taxaw ci ak la jaspora ak la coopération décentralisée ñoom it ñu taxaw ci ak les initiatives privées yaakaar naa ni lu xaalal gi bëri bëri bari yàlla mën nañu suturaal ba jox ñu loo xam ne incha allah dinañ ci mën a doxal programme boobu